ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre fii ci Rewmi TV ñoo ngi fii nga xamante ni moom mooy euh, yoonu Tivaouane bi ci li nga xamante ne mooy euh, ziara annuelle bi nga xamante moom la ñuy amal ren ci atum 2022 ginnaaw ñaari at yi nga euh, bi jël dogal daal di amalu ziar boobu nga xamante ni daanaka taalibe yi yëpp namoon nañ ko ñu ginnaaw li nga xamante ni moom mooy benn embouteillage bu metti boo xamante ni am na fi oto mënul dem oto mënul dikk daanaka ñi nga xamante ne sax dañoon def li nga xamante ni moom mooy contournement dañoo mujj retourné waat ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy ko télé parce que kenn mënul daal di circuler ni mu la neexee donc ñu wan leen nga xamante ne moo am ci ko télé bi bu ñu euh, xamante mooy ne ci ko télé bi muy taalibé yi ak nga xamante ne la ñu am fii ngir mën dugg euh, biir euh, Tivaouane kon ngeen topp ñu rek ñu leen li nga xamante ne moo fi am ci embouteillage tamit li nga xamante ne la taalibé yi lii di boobu ziar nga xamante ne toon nañ ñaari at yoo xamante ni amul te li ko li nga xamante ni moom mooy lii di coronavirus kon topp leen ñu fi nga xamante ni moom mooy Rewmi TV ñu jël kenn rek ci chauffeur ba léegi sëñ bi naka ngeen dundee jamono ji embouteillage embouteillage bi na lool bañ xëyee sept heures lañ départ Dakar ba léegi ñu ngi mënuñoo fexe ba yegg mais lan ko waral est-ce nekkul ñëpp ñoo jaar jaar yoon bi wala ñëpp jógandoo nañ waaye yoon yi état war na cee mën a wax mën a xoolaat fu ñu mën a def yoon ba nga xam ne bu ëllëgee bu ñu a dem parce que lépp problème yoon moo koy posé est-ce que aussi jotu ñu jël xamante mooy terre bi euh, daal koy dugal ci lu mel ne bi Tivaouane ndax euh, embouteillage ba ñu ci li nga a lu ñooy nekk amul ba mën a wàcc jël mbedd suuf ak yooyu noonu mbedd suuf yi xamuñ ko parce que fi ñu doon yi foo bëgg foo rek nga mën a jël dem te waa jàngaanam fii ak ba sept heures boo mooy dem Tiwaawan man taalibe Cheikh laa ñaa ñaar at ngeen toog euh, da defoon li mooy ziar bi ndax ngeen waaw na moo nañ lool moo tax ñu nii moo nañ lool man Cheikh laa am ngeen mbégte daal lool baax na jërëjëf donc euh, dégg ngeen ni ki jël ci li nga xamante ne moom mooy euh, boobile embouteillage mu mel ne metti na gis ngeen euh, suñu ginnaaw ni nga xamante ne noonu na ba nit ñi sax dañu mujj wàcc ñeneen ñi di dox parce que mënuñoo continuer li nga xamante ne moom mooy embouteillage parce que metti na tàng na te ñi nga ñoo jaar ci yoon bi nga xamante ne moom mooy yoonu Thiès bi dugg biir metti na metti boo xamante am na ñenn ñoo xamante ñu leen di woo téléphone leen wax ne bi mu ne continuer jaare beneen yoon lu mel ne yoon Louga bi wala lu ci yoonu Mbàkke bi donc boo gën a gaaw ngir nga mën a génn ci embouteillage yi daal yéen a ko gisee seen bopp ci li nga xamante na tàng na mbooy na fi donc euh, mi ngi noonu daal euh, fi nga xamante ni la ñu nekk nii ci yoon euh, jëm ci Tivaouane ci ziar bi nga xamante ne amal mu nekk li nga xamante ni moom la Tidiane daal di namoon bu baax a baax a baax ginnaaw naa at yoo xamante ne amul donc dañuy continuer rek dem ci li nga xamante ne moom mooy Tivaouane bu jëlee dox ba egg dinañ dox ba egg ànd ak sama technicien sama caméraman euh, Malick jërë ngeen jëf. tur bi naka la. man Basirou Sy laa tudd. Basirou Sy euh, taalibe Cheikh nga ngeen di dem si li nga xamante ne moom mooy mbir mi. Murid laa taalibe Murid dem Tivaouane. Mhm. gëj na maa gàmm ji moo tax siyaar bi mu bëgg ci teew. Mhm. waaye naka nga gis naka nga ñuy dundee tamit embouteillage ngeen bëgg a dem siyaare ji bëgg a ñëwaat. métti bi foo ko takk paas na ko lii moom xalifa bay tegu ci gisu ko. te ñi sës ci moom leeraluñ ko ko. Mhm. waaye lii dafa war a deñ ndax dëkk bu mel ni Tivaouane toll ni Tivaouane warul am benn vaa rek benn yoon rek boo xamee ne moom moo la fay dugal mm-hmm. li metti na trop li gendarme yi bu ne mën nañ ko rek dañuy wax li leen neex def état bi moom moom a jug si li ñoo war a jël seen lii ko moo xam dañuy dugal deer bi moo xam dañuy mm-hmm. ko mu gën a yaatu moo xam nuñ koy mën a doxalee waaye lii moom daa war a dañ li ñuy sonn nañ lool jërëgéen ko waaw ba léegi yéen a ñuy suivre fi nga xamante ni moom mooy Rewmi TV donc euh, ñuy dem des li nga xamante ni moom mooy euh, fii di Tivaouane euh, dañoo daan def mode dox comme ni koy defee parce que embouteillage yi moo ko waral ñu dem fa nga xamante ni moom mooy euh, Tivaouane ila Tivaouane dem fekk ji li nga xamante ni moom mooy wooteeb sëriñ bi xalif bi daal di woote li nga xamante ni mooy ziar bi ginnaaw at yoo xamante ni amul gis ngeen nit ñi li ñu wax mooy mbokk taalibe yi ak ñi nga xamante ne sax bokk ci li nga xamante ne moom mooy ziar bi fekk si ñaar yi nga xamante ni sëriñ bi war na koo joxe ginnaaw ñaari at yoo xamante ne amul mais embouteillage moom foo ko takk wees na ko parce que metti na te benn tëli moom moo am ñoom seen euh, li ñuy ñaax sama mooy état bi mu yokk li nga mooy route secondaire ñi euh, nga xamante mooy gàmmu nga xamante nit ñi mën nañoo ñëw deux jours ou trois jours avant mais euh, gis ngeen daal yéen a gis seen bopp si constat ba ñi sax ñu ngi dox comme ñun ñi nga xam moo fi am fii ba biir Tivaouane ak ambiance ba nga xamante ni ak ambiance bi am ba nga xamante ni moom mooy euh, biir Tivaouane ngeen dundi ko fi nga xamante ni moom mooy réew mi jërë ngeen jëf